di jaar Ëmma Gueye di jaar Adama Ndiaye. mangoog ñoom ñëpp Thiam. Famara. Mhm. waaw équipe matinale. waaw équipe matinale. ay jàmbaar lañu ay jàmbaar lañu surtout côté technique. kenn amul seen fay ndax ñoom bu ñu. wisu moom waaw. ku lu ko mën a xëy loolu rek jàpp ne jàmbaar. ku nekk moo mën a xëy fajar. tane ah, moo tax des fois. Eh, ñi ko xam ne lay jox dàmpaay ci loolu. Mm-hmm. ndàmpaayu fajar. Ah, ndàmpaayu fajar. am na ci solo guddi ñaar heure yi moom. Mm-hmm. ku la koy xëy dafa war a jox ndàmpaay. ci ci ci lu wér. waaw ah, lu wér parce que booy parce que booy daanaka booy xëy yaa ngi xëy ci guddi. Mm-hmm. oui ci guddi. ndax bu yeewoo trois heures yaa ngi yaa ngi gont. yaa ngi gont. fanaan fanaan. ah oui. jëf bëggoon nañu xam nag li xibaar yi fanaanoo ak la mu yendoo démb Walf Quotidien moom la xëyee Seydina Omar Ba yéen a ñu gi xëy fësale yéen di ñu nettali minute par minute na xam ne lu audience demee woon nekk na audience boo xam tàngoon na lool noonu la ko yéen a kaay gi xëy fësale leen itam loo xam yéen a kaay gi Walf Quotidien xëy na ko fësate mooy tirage au sort kan 2023 Euh, yéen kaay gi ne neexul bu neex waaye suñu kay dugg na ci pour boo xam ne ni euh, dana jafe lool ci ñoom mm-hmm. yéen kaay gi euh, Sud Quotidien yéen fësale Sabassi ngoog yor yor bi yor yor tribunal bu Ziguinchor juge bi kon mu dee naa joxe ndigal ñu dugalaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi euh, loolu yi kon mu ngi am gannaaw ba ñu ko fa rajee boobaak léegi toll na daa nekk ci ay fan lu jëm ca procès tey Fatou Fall ak ki euh, alias Falafleur euh, kii di procureur sàkku na ñu tëj ko si ñetti ati kaso waaye nag maître Moussa Sarr yëkkati na ay kàddam daal di ñëwal taxawaay procureur ndax dafa jàpp ne Falla Falla Fleur kon defu fi wala moo fi di war a tax wala dugg kaso noonu la ko yéen kaay gii di yor yor xëye fi yéen kaay geneen di source yéen kaay gii di source xëyee dellu si Ousmane Sonko bi nga xam daanaka juge jël na dogal daal di koy delloosiwaat ci liste électorale yi lée yéen kaay gi neexul ba neexul waaye bu bu doon ne jël la mhm. état bi Sénégal jël dafay jël na fa ñaari jël noonu la ko yéen kaay gi xëy fisale Euh, lu jëm nag ci mbir mi ak naka la demee lépp kon mu ngi ci yéen a kaay gii source a yéen a kaay bi di réew mi quotidien réew mi yéen a kaay ne tribunal bu Ziguinchor kii di way àttekat bi jël dogal kon daal di réintégré Ousmane Sonko jël dogal kon daal di koy delluwaat ci liste électorale yi de yéen a kaay geneen euh, di l'info l'info ne juge Sabassi Faye euh, daanaka jël na dogal kon daal di delluwaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi de maître Khoureyssi Ba doon kenn ci daal di ñaawlu taxawaayu waa agence judiciaire de l' état ndax dañ jàpp ne Ousmane Sonko def wala war waru fi tax ñu war koo jëlee ci liste électorale noonu la ko yéene kaay gi xëy fësale ku ci mel ni beneen ah, ah, keneen ci avocat am di Antoine mhm. moom ma ngay delloo njukkal kii di juge bi lee ndax dafa jàpp ne ab juge bi indépendant juge bu mandu juge bu jàmbaare mooy jël décision bu ni mel ci kanamu état noonu la ko yéene kaay gii di lee foo xëyee Fessel Abdoulaye yéene kaay géneen euh, l' évidence yéene kaay gii di l' évidence dafa xëyee dellu soit ci feneen wax ci équipe bu bees bi nga xam ni président Macky Sall ak ak premier ministre Amadou Ba taxawal nañ ko yéen kaay ne gouvernement bi nag bari ay manquement hmm. Ismaïla Madior Fall ak nga xam moo di Antoine Félix yàlla eh, def dañ leen dañ leen ngoo xam ne Euh, daanaka Macky Sall leen di jëfandikoo moo leen ay punsit bël euh, xaw ma punti bël xaw ma je ne sais pas ni ko gars yi waxee mais ak lu ci am dañ jàpp na ay nit lañ yoo xam ne daanaka président Macky Sall dafa leen di jëfandikoo bu ñu paree mu mhm. gi xëy fësale soit ci loolu leen itam loo xam yéen gi xëy ne ko dellu fësal bari ñu ngi doon xaar gouvernement bi ku ci mel ni Matar Ba Ndeye Sali Diop delluwaat ci gouvernement bi waaye dañ gis ne président Macky Euh, boole wu leen si tax yéen kaay gi ne fii ba keroog mu sotti am na lu am na daal lu ñuul lu dox ci diggante mhm. Macky ak ñaar ñi noonu la ko yéen kaay gii di l'évidence xëy fësal yéen bi di stade la mu fësal euh, stade yéen kaay dellu si waat ci tirage au sort coupe d'Afrique des nations bi nga xam war dañ ko amal fële ci Côte d'Ivoire mhm. Sénégal nag finalement mujj nañ xam ci poule bu mu bokkan Cameroun la fas yéene bokkal pool Guinée ak Gambie Gambie la fas seen match bu mu euh, mm-hmm. njëkk mm-hmm. mu nekk nag match yoo xam ni mu nekk bu sukkandiku mm-hmm. ko euh, xam ne diggante Modou ak Ama Baldé ñu ngi ko jàpp ni ko juróomi fan novembre yéene gi ne neexul bu neex waaye diggante bi fu mu toll ñagas na ku ci mën nag Modou Lô yëkkati ay kàddoom di artu Ama Baldé xamal ko ne ko mu jàngi xeex